Mình đặt hết rồi. Rồi đi. Mắt cái bôi nó mắt. Mình đặt hết rồi.

السادس أكثر شرفا لأنه للورى السلام عليكم ورحمة الله coba ba aja daje di yéen dana ak ngeen ak li sama laay dalalee xaaritu tey ak ñi mu àndal muy médecins yi nga xam ne ñoom ñu ci taatu daal ñëpp muy noonu ñu ngi leen di nuyu ci turu daara ji waaye ngeen boole ci seen bopp boole seen bopp mbooloo mi ñu àndal ñun lépp mu boole lépp muy leer muy seen ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu waa kuréelu xasida yi di ko teg ci loxol sëñ Bourou Fall ak sëñ Abdoulaye ak sëñ Bourou ak sëñ Fall ak sëñ Saliou Ndiaye ñu ngi leen di bàyyi xel ñëpp di leen yóbbu di waa daara ñu nuyu ak yàlla Desde o professor Moisés, Moisés Alguém, yëpp ndax man man ñoo toog ci mbedd bi rek ñu jàpp ne ñu nekk fii ñoo leen gën a jege sëñ bi wala déedéet man ñëpp ñoo yem ndax ñëpp nag li leen indi ci man rek mooy sëñ bi génnewu ma jigéen yoonu muy bu wéer benn sëriñ la muy sëriñ bu baax keneen bu ñuy jox beneen pour dañ la koy warmaale benn sëriñ la muy sëriñ bu baax ginnaaw sëriñ Tuubaa bu jàngee ci yoonu mu ku nekk ab taay bi ngi ci bu la neexee ak bu la naqaree maa ko doomu sëriñ doomu sëriñ yoonu benn sëriñ la muy sëriñ bu baax bu sëriñ bu baax jàngee ku nekk taay bi ngi ci ndax danaa Hidup sekarang, si kanam ay lu leen bëgg def ay daan te nguur bu duggee pada tag bi rek moo rafet waaye baa doon day ñëw loolu da ngay daal jàpp ci bopp pour jàpp to あの yaatoo rek nit ñi dara ñu dañu xam ne mbay mi ngi sant bu baax nga ñu àndal suñu daara yëpp ci turu koñ bi ci turu dëkk bi ci turu ñëpp di la wax ne la liggéey bi ngeen def kenn mën leen ko fay sëriñ rek mën leen moo leen moo leen mën a fay te dana gën a jaar ndax ñëpp lu cee war a jàpp te dana ci jàpp man koy wax Samba Dia ko lancé ñu nekk ci ñëpp ñu jàpp العالمين نتكلم عن نحن الكونات اليوم التغيير النفسي الكرة تحصل صفوف كانت الكرة مكتلة صفوف ثلاثة غير الكونات وين كان يلا بقية ومحدد بعد الدولة في مناكبها وكل مناكبها وإليه قال يريد أن تعلم soxna yi ak euh, ñuy kër boobu dañu tëju ci suñu génn nekk ci biir rek loolu kaso la daa def mooy tabax bu kaso boobu lay def kon dama bëgg dund librement sonn nu ma nee librement dama bëgg a ak yére yi taw ndax bi ma sol ci tey moo moo ma boole moom nag dëkk ci 43 degré bi sol 10 mètres benn séance bu logique kon nañu xam ne système bu ñuy suivi rek mooy ak jàpp jàpp ci ñu otage ba ne man de suñu maasam la waaye ñu ko waxtaan rek te dina suñ bi yàq na seen réew pourtant ma ko d'accord rek waaye comme fexe nañ ba loolu mu ne mën a dugg ba jëlee man daal loolu bëgg mooy li ma woote mooy waaye mbooloo yu bari xeet yoo ko leen gërëm jaalu yoon man li ma ci benn xalaat li ma woote mooy li yàlla woote li may ñaan ba ci dina sa daal laay ñaan suñu ko nit ñi xamee ak ñu ko xam sëriñ bi lépp lu ko indil ci ci ci yëgum yi woote ak tax tax ak jaalu yoon li tubaab 알고리즘을 가 demande day xatal mooy jiw yi ñu doon wax ne ña ko jëmoon lool yàlla bokkoon bi moo tax demande gis moo tax bu moo sol ay yére waaye day associé moo ñëw yére bi jox ndax tamit bu jara wax lépp danaa leen jox علمنا القرون اللهم اجعلنا في القران الكريم نفرح بآيات وذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما استطعت به من الخير وذكرنا بما ضربت به من المقتدر وكفر تلاوته عن السيئة إنه اللهم ويسر كتابنا ويسر كتابنا وتقيني بنا بحسنات حسنا كتابنا على سلامه وحسنا وسجدنا بحسنك ورسيدنا وسلام وسلام واكرمنا بخائر اللهم اجعل القران العظيم ربي Yeah. Thank you. Thank you.

xaal leen yoon ñu ñëw ah man de fii laa bi. ñu ñëw mu ñëw ñu na ñëw. waaw waaw. wallaahi sa rasul laay Adama waajaa ngi de waajaa ngi de barke borom Tuuba boo ñu dimbali tey ak ëllëg maa lay sa buri waajaa ngi de